Touba la ñu weddi la bokk xool leen xàll wi nga xam ne mbokk yi moo bàyyi ko station Daaru Xuddoos jëm rond point garage yu Daaru ba ci kër Serigne Sidi Mokhtar càggante tax ay at mu lëndëm kiris ndax lan dañ doon xaar ku nu ko niital seeni ñaari téeméer tax na xàll waa ngi ni mbokk mel ne bëccëg. toll na jamono yoo xam ne bu timis jotee kenn du génn mbokk yi ñaawte fu ne xew na fii diggante station Daaru Xuddoos rond point Daaru jëm kër Serigne Sidi Mokhtar Mbacké soxna yi jaaxle lool buñ jógee xew ñu leen di dogale ndax lëndëm tey seeni ñaari téeméer tax na xàlluwaa gi bi leer nañ weddi nag gis bokk ca ولتكفني كيد كل استداء ولتكفني دراسة سيتاني وعلمي الباخن في الأوتان ولتكفني كل شخص لم يريد وجهك فاسلم سريعا يزيد ولتكفن جملة ما يفسدان waaw ñi féetee fii jaaxle woon lool ne ci lëndëm ay at ndax saggante waaw ñoom nu ñu dundee lii. fii kay mën na mën na lool fii guddi dawoo fu ñemee dox fii guddi dawoo fu ñemee dox waaye Issa ñu ngi sant Touba ci kanam bu baax a baax a baax ndax lii mus fee am màggal yi comme ni ma la wax rek màggal la daan tàkk màgg jaale mu fay ginnaaw loolu màgg seeb la màgg seeb la jàlle day fay ñoo ngi rafetlu liggéey Touba ci kanam bu baax a baax a baax na mbedd yi ci ginnaaw yëpp ñoom ñoo ko defaroon ñoo ko sëkkoon aussi itam ñu ñëwaat ci ñu ñëwaat nii ci lamp yi nii ñoo leen ciy sant bu baax te rafetlu seen liggéey macha allah gis na ni dëkk bi leer da naan am problème foo jaar ndax lëndëm mais bu ngeen ñëwee rek dëkk bi leer na nañ nañ nit day taxaw fële sax mën kaa gis te loolu seenu baax ak li ma liggéey Sëñ Tuubaa moo tax ngeen def ko. macha allah liggéey bi daal rafet na lool macha foo jaar danga ko gis liggéey Tuubaa ci kanam boo xoolee danga gis boo làmbee danga ko daj waaw Tuubaa daal sant nañ leen baax a baax di ñaax ndaw ñi tamit ñu gën a góorgóorlu baax a baax waaw lépp loo xamante ni laaj nañ ko rek ñu fa yéene ko cee def ndax ñoom dañuy laaj luñ man def ko fuñ xam loolu moom la ko sëñ Cheikh Gaïndé Fatma waxoon. comme sama sànq gi maa ngi leen weeru dee 1000 francs yomb na si man laa koy tàmbalee sax weeru dee 1000 francs ñu ñëw dagg ko parce que nag moom mi ngi fépp mi ngi jumaa ji fépp foo xam ne daal ah lii bi yomb na am na orange am na am na wéef di soññi sama sànq yi ñu jàpp si bu baax waaw fonk dëkk bi te dëkk lañ am fi leen juddoo feen màggee ñu lépp loo xam ne jëmal dëkk bi kanam dañ see war a jàpp muy lépp bu noonu laaj sax weer junni sax war nañoo jaayante jëm suñ Tuubaa def ko. ku ko man sax di def douze mille par fee de par par année bi. moo gën na na murid yëpp passé ku du mën a liggéey suñ Touba amul murid amul tijaan. Touba leer nañ ak seeni ñaar téeméer ñu defe ne ca la ca kanam di yem ñu ne déedéet commandé nañu ay poto li ko dalee ci kër sëriñ Serigne Sidi Mokhtar ba ca hôpital bu bees ba day leer nañ. وكن wa كل نجاة وفلاح wa لصواب وسلام وتخرنا بفعل ما مبتاه ولتكفنا عن فعل ما أبختا ولا تكن مبتليا منها هرا بما ليس يتيح يا سمان وهب لنا التيسير والفلاح ñu ne fa la Touba ca kanam di yem ñëw leen ñu ànd dépare ci station Daaru Xuddoos bi jëm Tookoor ba mbokk yi xool leen mbedd mi nga xam ne ay at day lëndëm kiris màggal ba màggal lañ ci jéem dara mbokk yi bu màggal gi jàllee mu delluwaat ci lëndëm xool leen tey seeni ñaari téeméer tax na mbedd maa ngi nii leer nañ ñu ne Touba ca kanam ndax da yem tóokóor ba mu ne déedéet dañoo bëgg a fellanti garab yi waaye allié lañ jëm ak seeni ñaari téeméer cëy sëriñ Touba waaye cëy Touba ca kanam mbokk yi xool leen xool leen tóokóor ba xool leen ni mu mel léegi. ولتكفنا كسبا ولهوا ولتكفنا عواما لا يغني بك ودابا أخنا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة عوسا من ذنوب ياس مولا يا بر رحمتك أرجى عندنا xam ngeen ne sëriñ bi bëgg na ci yéen de sëriñ Abibu Mbàkke ak mbooleem kilifay Touba ca kanam ñëw nañ nemmeeku ci liggéey bi mbokk yi doxantu nañ ci mbeddi Touba yi xool ni nga xam ne noonu lañuy def ñaari xàll yi ci seeni ñaari téeméer te mu lëndëm kiris ay at a ngi nii ndax lan dañ doon xaar ku ñu ko niital mbokk yi sëriñ Touba de moo ne woon ca 1926 na kenn ku nekk indi ñaar fukk juróom-ñett ñu dajale ko muy ay koppar yu bari mu ne damaa bëgg bu ëllëgee lépp lu ngeen di defati ngeen def nii ndax damay bañ ku leen mënal sañal leen ñu fàtte ko defe ne yoon wi yoonu xaaraate la di xaar ku ñu niital mbedd sëriñ Touba yi waaye xool leen bi seen ñaar téeméer yi daje ci loxoy Touba ca kanam lii de mooy dëgg dëgg laaj lu ñu mën di ko def fu ñu xam mbedd sëriñ Touba bu ñu sàggane ba mu lëndëm kiris Touba ca kanam fas yéene feddali laxasaay yi ak seeni ñaari téeméer leeral ko ba mu leer bu seeni ñaari téeméer dakkul mbokk yi lii moom du dakk kon ay ca mburit seeni ñaari téeméer yi ci diir bu gàtt tubaa ca kanam jënd na lu tolli ci fukki junniy làmp ak juróom mboolem barab bu nekk ci dëkk bu sell bi di tubaa Touba ca kanam fas yéene na fa samp làmp mu leer naññ képp koo xam ne danga ragal leer nag toxul tubaa ca kanam mi ngi ñëw ak seeni ñaari téeméer Touba leer naññ lii mooy warteef dëkkub leer day leer yallaawu yaa waabu yaa ala rafiq di yàllukan man yowma an fa tarix bi hurmatil mustafa il muqarrabi walaali wasabi wasabi rajabi judliya bi taxdimi wa tasdiqi bi hurmatil muqaddimi siddiqi wajalilaayi maskani tuuba misras mi abi jaayi xayri man abaa